bonjour amee internet yi nga xamante ni yéen faral di seetaan seen site internet Dakar Actu ginnaaw bi ñu leen nuyoo jox leen seen wàccuwaay tey nag ñu ànd ak yéen ci entretien bi nga xam ne ñu ngi seeti ki nga xam ne moo di leader politique di Moustapha Diop moom nag ñu fekk ko fii ci diwaanu Ngent du ñu def lu dul dara koy jox kàddu rek mu dikk ak ñun ci kan mooy Moustapha Diop. Ah, asalaamaaleykum Kumba maa leen di nuyu bu baax di nuyu waa Dakar Actu. di rapporteur tamit seen médecine fii si coonaax coonaax pël la donc fii tamit ci siège donc man Diop ñu xam ci Djamil euh, président parti est-ce que mën nga ak dikkaat ak ñun Diop kan Moustapha Diop Moustapha Thiès gi le màggee fii la yaroo fii la jànge jànge lycée bu ñuy wax euh, El Hadji malik Sy foofu la amee bac euh, bu wax S2 donc euh, ci la continuer étudier au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la faculté des sciences économiques et de gestion bi mu paree ci la am liggéey di liggéey nag ci lu wax microfinance microfinance boo ko déggee mooy la finance sociale

fekk que Sénégal dafa fu mu ci benn situation bi nga xam dañ koy ak Goudi ak lëndëm ndaxte li waral nit jóg jafe-jafe ñu contradiction ak tamit parce que Sénégal dañoo toll fa nga xam ne suñu valeur yi ñu amoon dafa commencé disparaître les gens ils ont commencé nous avons commencé à perdre nos valeurs gis ay yeneen idéologie nga xam dafa pour ñàkk xorma pour nërmeel société et société pour que cette société là puisse être euh, développer il faut que ñu wax discipline métier yi nga gis yépp muy sport ak le lu mu doon on parle de la discipline et les pays qui ont réussi dans ce monde là ils ont réussi grâce à la discipline donc nous ñun bu ñu toggee bëss tay ji ba fu ñu toll que ñu gis discipline Nous ñu ñu yaree won ñu màgg ci yaru ci ba toll ni ñu toll aujourd'hui ñu gis ne ñu koy nërmeel jéem jël xalé jël dimension doxul donc day tax ñun ñu jóg jóg taxaw taxaw suñu askan ci lan nga dégg mais tamit parce que ce qu'on dit nit c'est lu li lay ci mais tamit li nga lay ay ci nga nité loolu actuellement pour un Sénégal pour que le Sénégal puisse se développer on a besoin d'un Sénégalais éveillé on a besoin aussi d'un Sénégal bi nga responsable ginnaaw loolu est-ce que mën nga dikk ci li nga xam ne moo di objectifu parti bi ak fan ngeen ko namme jëme ak euh, nan ngeen waaw euh, parti bi objectif am euh, actuellement mooy taxaw sunu réew defar sunu réew ndax Sénégal dañ ko tabax je toujours Sénégal dañ ko tabax pour nga mën a tabax Sénégal nag daf dangay ànd ak benn la nga xam ne ay valeur yow indi teg ko pour nga tabax Sénégal dafa am la nga xam da koy oote mooy leen liggéey parce que soo xoolee on a parlé de nation indépendante intègre travail engagé le travail là que nous disons c' est beneen idéologie la bi nga xam dañ ko bëgg indi mooy parce que Sénégal dañoo jàpp ne tey Sénégal liggéey du fa joxe xaalis li fa joxe xaalis mooy ay tappale donc nag ñun du ñu bëgg indiwaat la valeur travail là que le Sénégalais retourne au travail gëm ne kat on peut bâtir notre pays. Comment bâtir notre pays en travaillant Comment bâtir notre pays aussi en rendant les gens indépendants Cette indépendance-là, collectif, individuellement, que les Sénégalais soient indépendants et collectivement aussi que les Sénégalais soient indépendants. Donc, nous sommes taxaw pour que le sénégalais soit autonome travail pour que les sénégalais bi nga Nous jeunesse. la jeunesse jeunesse bi nga xam nous parce que si vous Sénégal fu mu toll dañoo am situation situation misérable la jeunesse a perdu d'espoir. Et cet espoir-là que la jeunesse a perdu fait que ñoom ñëpp dañoo désemparé wu di dugg ci la nga xam ne xamuñu ko di dugg ci ay problème dugg ci ay musiba te loolu yëpp li ko waral mooy amuñ ci lu ñu téye moo tax ñu nag sunu politique dañu koo jël tey aujourd'hui nekkat on va changer le Sénégal on va développer le Sénégal ci naka mooy en assistant la jeunesse ci des moyens ou bien des outils yi nga xam dañu ko mën a pour mën a autonome donc nous lu ñu bëgg mooy la l'autonomisation des jeunes l'autonomisation de tout un Sénégalais, que tout un Sénégalais puisse être libre, puisse être autonome et puisse se développer. ginnaw bi nga xamee ni samp nga sa ndënd wax nga li nga xamante ni moo di say objectif li ñuy laaj rek mooy da ngay ànd ak pouvoir wala da ngay ànd ak opposition naka nga fas yéene doxalee mbir waaw ñun euh, actuellement parti bi ñu ko sosee dafa am euh, li nga xam ne moom lañu jàpp mooy jubbanti jubbanti googu tamit dañ ci dem action yoonu bopp yoonu bopp bi mooy on est de l'opposition mais nag dañoo tracé suñu voie ni kan ñun fii lañu bëgg a jëm yoon bii lañ jël pour développer le Sénégal mais nag ah tëj tëj ñu suñuy bunt parce que toute personne ki nga xam ne gëm nga ni Sénégal war nga ko mën a développer képp ki nga xam ne gëm nga ni yow war nga jàpp ci développement du Sénégal ñun ubbi nañ la suñu bunt mais ubbi boobu tamit dafa am ay charte ñu teg charte yi mooy yar charte yi mooy ay valeurs yu bëri nga xam ne dañ ko teg pour le développement du Sénégal képp ki nga xam ne pare nga ci

li nga xam ne nag moo di euh, situation politique bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réew mi ku ne xam ne ne diwaanu Ceeskaay bokk na ci diwaan yi nga xam ni gën na ci taq ak euh, li nga xam ne nag moo di président Idrissa Seck digganteem ak euh, Macky Sall yow nan nga jàngatee loolu ak ya, nan nga yaakaar ne war nga ko mën a positionné woo pour bañ a taq ci mel noonu waaw xam nga boo ko Idrissa Seck comme ni nga ko waxee mook Macky Sall ñoom ñoo àndoon ça fait presque deux ans ñu ngi liggéey ensemble

wala bok politique politicienne bi nga xam moo fa amoon ñun ñi lii mu dootul amati ñu dindi ko fi parce que tout ce qui li ñu retardé ñun sénégalais mooy la politique politicienne. aujourd'hui am nañ leen lu bees am nañ groupe ba nga xam ni dafa bees groupe ba nga xam ne li ñu indi mooy liggéey comme ni ma koy waxee chaque jour nous nous ne sommes pas des politiciens on n'est pas venu pour faire de la politique politicienne boobu. nous on est venu moi je dans notre groupe nous surtout nous nous travaillons dañuy liggéey donc politique bi ñu indi mooy liggéey ba pare doog a ñëw def politique donc c'est ça que que nous avons amené muy lu bees la nga xamné ne na ci seen politique bi seen politique bi ñi nga gis ñep la plupart qu'est-ce qu'ils font politique la dundé chaque jour depuis 5 ans ñi ngi ñi ngi def politique mais ñun on a dit que li ñu bëgg moy ngay liggéey ba paré doog def politique donc nous so ñëwé ci suñu groupe ñun ñep dañuy liggéey su mu ñu ñu ci ñu liggéey doga doga doog def suñu politique moo dañu lu ñu dañoo initié woon tey soo wax les 30 minutes de nit moy lan chaque membre

waaw xam nga uh, Macky Sall président Sall dafa am waxoon ba pare moom dafa ni woon deux mandat lay def te bii mu nekk nii mooy deuxième mandat am ci li ma discours yi ma dégg mu wax donc man boobu ba tey loolu laa jàpp te ñun dafa am lu ñu baaxoo suñu aada la lan mooy suñu aada mooy respecté kàddu donc képp koo gis muy sénégalais lu ñuy wax gor ca wax ja donc c'est ça qu'on lui demande c'est ça que nous attendons du président de la république Nous nous, changé donc nous nous, il va faire que deux mandats c'est 2024 qu'il va quitter le pouvoir et laisser les autres continuer. élection présidentielle en tant que chef de parti. yow y candidat nga yaakaar candidat. war a été ngeen nous, dem Sénégal waaw non élec ñun élection yi bii di ñëw dañ ci dañ ci samp suñu ka ndënd bu soobee yàlla élection yi di 2024 ñu ngi ciy liggéey pour samp suñu ndënd bu soobee yàlla donc nekkuñu ne dañuy ànd ak benn candidat nous nous con nous allons conquérir le pouvoir incha allah pour ces élections de 2024. vous allez être donc candidat. bien sûr nous allons être candidat ñu ngi ciy travailler ci kanam di ngeen gis ñu def suñu congrès bu soobee yàlla suñu congrès d'investiture et préparer ces élections là pour 2024 te ñaan yàlla tamit may ñu ndam bu soobee yàlla. léegi nag duñu def lu di la laaj rek euh, sa mot de fin lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax sénégalais yi ñu xaar ko ci parti bi. waaw euh, sénégalais yi de moom li mu leen di wax euh, wax dëgg yàlla ci parti bi mooy vous avez un parti bu ñu tuddee nit nité donc ñun ñu ngi woo sénégalais yépp képp ki nga xam ne jàpp nga ne tey Sénégal war nga ko mën a développer képp ki nga xam ne tey jàpp nga ne Sénégal war nga ci mën a tabax def ci sa def ci sa wàll pour liggéey ko ñun ñu ngi la ciy woo. Parce que nous, nous appelons à la, construction du Sénégal. Nous appelons à bâtir un Sénégal nouveau. Remettre le Sénégal sur des rails de développement. Comme je le dis toujours, le Sénégal a un pays. Parce que nous, on a une jeunesse, une jeunesse très motivée, une jeunesse très engagée. Une jeunesse qui sait l'un le gamme le développement de son pays. Et développer notre pays, ce n'est pas difficile. Ça demande seulement de l'engagement. Que chaque Sénégalais se réveille et s'engage. Dire que moi, je dois développer mon pays. Comment Par l'action on ne doit pas développer son pays nga tok sa kër ne non du damay développer son pays Dedet ku chaque Sénégalais bu jógee na def action góorgóorlu xam kat le pays dañu ko mën développer. ba tamit bu ñuy tak tamit ëlëk yi nga xam ñom ñoy njiit ñi bëgg ñi bëgg ñu njiit suñu réew tamit ñu xol leen bu fekkante dañu bëgg continuer continuité y a la politique. léegi monsieur Diop est-ce que mën nga dik ak ñun tuuti ci li nga xamné modi programme bi ngeen fas yéene présenté Sénégalais nous, euh, ñun sénégalais yi li leen di euh, proposer ci suñu programme une partie là, une partie bi nga xam ne euh, jëm surtout sur la jeunesse et les sénégalais parce que ñun dafa am lu ñu seetlu sur ci suñu politique suñu politique aujourd'hui dañuy am tendance à donner seulement de l'argent ni dañuy jox nit ñi et en plus xaalis boobu kenn du xam fu mu jëm ñun nag suñu programme dañuy def ce qu'on appelle la mutualisation des efforts et dans cette mutualisation des efforts-là, on va identifier les jeunes et les groupes qui sont par ou bien ont un projet de société ou bien un projet de développement. Nous avons fait que nous avons des moyens. Nous de telle sorte que nous sommes autonomes. Parce que nous, notre politique, c'est l'autonomisation de la population sénégalaise. Donc, nous avons fait que nous avons nous avons quelqu'un avec l'autre, nous avons un groupe, par exemple, de 5 ou de 6 personnes. Nous avons des moyens, nous avons beaucoup donc bu ngeen bokk liggéey nag loolu day da permettre yéen groupe boobu noonu ku ci nekk di nga mën a surveiller sa morom day nekk benn genre ah, mini entreprise ba nga xam ne kenn du ko yàq keneen tamit doo nga sa morom yàq ko donc ñun suñu objectif mooy taxawu sénégalais bi sur des moyens ba sénégalais boobu noonu mën a développé wu mën a moom boppam mais dootu nekk ci politique ba nga xam ne dañuy ñëw jox la xaalis tey nga lekk ko suba tamit nga taw nga dawaat ci ginnaaw nit ki pour am loo amaat déedéet ñun bu doxuñ ci loolu ñun lu ñu dox mooy taxawul Sénégalais jox ko les moyens ba mu mën a moom libre te individuellement su Sénégal est libre collectivement tout le monde sera libre te tout le monde sera autonome loolu daal mooy suñu objectif. les gens qui sont les anciens politiciens ils sont là mais nag bu ñu bëggee rupture on a à prendre que des gens yi nga xam ne defuñu politique ñoom lu ñu gëm développement du pays mais ñu lu ñuy wax politique politicienne ñun nag dañoo ñëw indi li nga la politique du développement développer le Sénégal ci loolu moo ñu tax a jóg donc ñu ngi ci Sénégalais di woo Sénégal yépp tamit ci jàmm parce que tamit jàmm mooy defar am réew lépp loo mën a am te amoo jàmm tu peux pas continuer li xew Soudan barki dem gis nañu ko on nag personne n'aime pas ça lan la parce que ay kuréel la nga xam ne ku nekk yaa ngi pouvoir bi et des centaines et des centaines de personnes ñu ngi est-ce que jar na ko on n'a pas besoin de ça ñun lu ñu bëgg mooy la stabilité la paix avec la stabilité on peut développer tout ce que nous voulons on n'avait rien et on était stable et on est arrivé aujourd'hui ici donc aussi bis bu ñu ñu am lu tuuti lu mu am stabilité gëm suñu réew defar suñu réew a baña def la nga la ne dafay la suñu réew lo dal mom lay la Sénégal yépp ñëpp tok ñu ñëw defar suñu réew soba yalla ngay joxé quand pour le congrès. waaw pour le congrès xamna ñu date rek la ñu ngi ci travail inshallah date bi mais inshallah wu dara di ci convier. ngeen ñëw assister ngeen xam ne kat ñun euh, tey jii mooy suñu congrès d'investiture yéen it dañ leen ci invité bu soobee yàlla. ok ami internet ñoo ko déggandoo dégg ngeen li nga xamante ni moom la Moustapha Diop wax di chef de parti. seen nag samp ndëndam ci élection présidentielle yi ñuy jublu di 2024 noonu rek la ñuy daal di tàggatoo ak yéen di leen wax euh, jaajëf di leen wax ba beneen yoon incha allah ci beneen entretien jër ngeen jëf.